الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه قال أبو داود رحمه الله باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حاء وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي القرن الذين بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يأتمن ولا يؤتمنون ويفسو فيه مسلما باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسب لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولو نسيفا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 jéggal nu lépp loo xam ne njuumte nga ci kon mu nu dellusiwaat fas yéene daal di dugg ci bunt bi ànd ak al abu daawud ci kitaabu sunna bunt bi gannaaw boo xamee ne nopp na ci bunt bi aju woon ci alxulafa muy xalifa yi dafa dugg ci bunt boo xam ne moom it bu sell bu am solo la mu di baabun في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابة ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم سيدين جنيل شلي وخ أه، صحابة ينتبه نك يباري لين نخدني وخنا أب صحابي موي كان كيف كو خمني جسنا ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم جمكو ba noppi faatu ci lislaam ñett yooyu faw mu daje mu door a tudd saxaabi yi bu ñuy wax gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jublu mooy daje ak moom jamono dikk ba fa mu nekk ci benn place su fekkee ku yori bët di xoole la mu gis ko su dee ku yàlla dogal mu silmaxa it mu toog ak moom kon ba tey kooku day dugg ci biir ku gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon képp ku dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko su daje woon ak moom te gëmu ko it bokkul ci saxaaba yi ab yéefar lay doon day des ci kéefaram ñu mel ni abu lahab ak abu jahl ñooñu ñëpp gis nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund ak moom waaye kenn du wax nañ saxaaba lañ ndax gëmuñu ko su daje woon ak moom ba gëm ko it waaye faatuwut ci lislaam ci sababu ak tubbi gannaaw boo xamee ne gëm na ba noppi génnaat na lislaam dugg ci kéefër kooku it ba tey bokkul ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na kuñ daan wax abdullah ibnu jahsh gannaaw boo xamee ne dugg na ci lislaam ba gàddaay wala gàddaayul ci lenn ci wax yi lu mën a xew yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na ko mu gàddaay dem xabasha muy éthiopie bam ànde sahaba ya fa demoon dafa daal di dem dugg ci diine nasran daldi di toog foofu wala yaasu billah kon kooka gëmoon na duggoon na itam ci lislaam ba gàddaay ci biir lislaam dem ba xabasa waaye taxul taxul ñi di wax ne ci sahaba yi la bokk kon faawu daal dajeeg yonent bi ak gëm ko ak faatu ci lislaam ñett yooyu ñooy daje mu door a bokk ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam دورا بوك تي نغنيل يي ني تودي تام نغنيل صحابه نك يو ماغلا واي الامام ابو داوود دا فا جوبلو رك جونجي ليرال بن حديث بو خاني بو سيولا بو جوغي تي يارن دبي صلى الله عليه واله وسلم بو خاني تي لي تودي سي نغنيل ما حديث بن حدثنا عمرو بن عون قال انبانا دال دي صبي سند با من وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن إمران ابن عصيم ابن حسين كن صحابي بن دج حديث بكو بابو مولي عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن حديث بوبو الإمام أبو داود دكو أندي حديث عمران بن حسين وعيد du دونغ موي صحابي بكو ديجيتي يرنتبي صلى الله عليه وآله وسلم موم دغنا كو تي يونت بي حديثم موم عمران ابن حسين ميغي تي بخاري اك مسلم كون دو امام ابو داود رك مكو ген باتاي حديث بي جيلي نانكو تي عبد الله ابن مسعود مود حديث خير امتي القرن الذي بعثت فيهم باتاي حديث عبد الله ابن مسعود ميغي تي بخاري اك مسلم جيلي نانكو تي ابو هريره اك عائشه رضي الله تعالى عنهما لولو ميغي تي صحيح مسلم kon xadis la boo xam ne saxaaba yu bare bari solo nañ ko yonent bi lan la wax foofu daf ne xayru ummati ñi gën ci sama xeet ñi gën ci sama xeet al qarnu alladi buistu fihim mu ne mooy qarnu bi nga xam ne ci lañ ma yabal ci la doone ab yonent feeñ di woote nee xarnu boobu moo gën ci xarnu yi xarnu nag suñ koy firi dañuy faral di wax siècle waaye nag teewul ak yooyoo bu mag a mag am na ci boroom xam-xami arab yi moo xam ci wàllu langue la walla ci wàllu sharia xarnu mooy lan ay wax yu bari la li ko tàmbalee ci fukki at ba ci téeméeri at ak ñaar fukk daanaka wax ju dox ci diggante bi mu ne rek am na ko wax ne loolu mooy xarnu kon juuyoo gu bare bari la la ca gën a siiw moo di ne téeméeri at la waaye nag la gën a wér ci xadis bii moom moo di lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jublu du téeméeri at jubluwul téeméeri at waaye ak maas la jublu li waral ne ak maas la jublu moo di ci yeneen xadis yoo xam ne dañoo reeral leeral bii parce que su fekkoon ne dafa jublu ne li gën ci xeet yi sama xeet mooy téeméeri at yi nga xam ne ci lañ ma yónni waxaat na téeméeri at ya ca tegu waxaat na téeméeri at ya ca tegu kon loolu dana am ñeneen ñi ca dugg ñu bare bari ñoo xam ne taxut muy wax kon lim ci jublu mooy ak maasam gim dajeel ñooñu ñooy saxaaba yi mooy qarnub saxaaba yi summa alladina yalunahum mooy qarnub taabi'un yi summa alladina yalownahum ci ñetteel ba mooy ñi nga xam ne ñoo topp taabi'un yi bu ñu waxee saxaaba yi kon mooy ka gis yonent bi gëm ko faatu ci lislaam buñ ne at taabi'un mooy ñi nga xam ne ñoo dajeeg saxaaba yi gëm lislaam ba noppi faatu ci lislaam buñ ne ña topp taabi'un yi ñoom it ñooy ña dajeeg taalubay saxaaba ya gëm lislaam faatu ci lislaam kon ñetti maas yooyu moo tax ñuy wax am na yeneen xadis yoo xam ne ñooy leeral loolu ah fii nag boo xoolee da nga gis ne gannaaw boo xam ne ba mu ne suma ladina yalunahum summa ladina yalunahum imran ibn xusayn dafa wax ne wallahu aalam yàlla moo xam zakara salisa am laa moo xam ndax ñaari yoon la ko wax wala ñetti yoon la ko wax ndax tudd na ñetteelu maas ga wala ñaari rek la tudd sikki sàkk boobu ci riwaaya bii rek ci la nekk benn riwaaya fa imran ibn xuseyn waaye beneen riwaayaam amul sikki sàkk nekk noonu it amul benn sikki sàkk ci ne ñetti seekal yi la tudd ci yeneen xadis yi ci des muy xadisu ibnu mas'ud ak xadisu abi hurayra ak xadisu aïcha bi nekk ci muslim boobu nga xam ne maalik moo ko solo jële ko ci aïcha daf ne lan qaala rajulun ya rasul allahi ayu naasi xayr dafa am ku laaj yonente bi ne ko kan moo gën ci nit ñi mu ne alqarnu alladi ana fiihi maanaam maas gi nga xam ne man ci laa bokk summa saani summa kon mu daal di ne topp maas ga ca tegu topp maasu ñetteel ga kon foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na nañ ñi ne maasug ñaareel gi la wax ak maasug ñetteel gi lan moo nuy won ne jubluwut kon téeméeri at ak lan moo nuy won ne saxaaba yi li ci jublu ak taabiun yi am na xadis boo xam ne abu saïd al xudri moo ko solo jële ko ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ne yati ala annaasi zamanun fa yaxzuu fi'aamun min annaas fa yaquluun فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم نانا جمانو دانا ديك تي او نيت نيو دي خيخ دي جهاد في سبيل الله نانا نيو لاجانتي ناخ امنا تي سين بير كو اندون يونس بي صلى الله عليه واله وسلم nee ñu ne waaw waaw am na ci ñoo xam ne kay ñu àndoon ak yonent bi lañ nee na fa yuftaxu lahum nee na ñu may leen fatx mooy ñu may leen ngañaay ci seen jihaad fi sabilillah mu teg ne summa yati ala annaasi zamanun fa yaxzu fi'aamun min annaas fa yuqaalu fiikum من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم نانا جنن جمانو دكتي مي جمانو جتاكو چه جوجا أمبالو جنة بجهات في سبيل الله نانا نولاج لين ندخ أمنا چيين كن كو أندو نك صحابة يننتي بي صلى الله عليه وآله وسلم نانا نانا واواو نانا يالا مايلين جنعي متتنة ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقال فيقولون نعم فيفتح لهم لأن جنين جمانو تقوات جوجا ñu génn di jihaat fi sabilillah ñu laaj leen ndax am na ci mbooloo mi kenn ku àndandooy saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu waaw ñu ne leen nga ñàkk kon kooku dal na lay leeral ci maasa ngoog genn maas gi mooy ñi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy saxaaba yi ñaareelu maas gi mooy ñi àndoon ak saxaaba yi moo tudd taabiroon yi ñetteelu maas gi mooy ñi àndoon ak taabiroon yi ñi du leen tudde baaxu ak أتباع التابعين كون نيتي ماس يوي سي سين غنيل صاح دمنا با اغ سي سوني اندي جهاد في سبيل الله لو اوبس سي سين جهاد يير سينو سنال داني لو خامني سون بروم تبارك وتعالى مولين كوي مولين كوي ديفال كون سين غنيل لولو wote wut ak ngeneelul yonente bi sallallahu ngeneelul sahaba yi ak tabi'uni ak asba'u tabi'in yi yonente bi sallallahu leral ci hadith bi ndax dafa ne li gën ci sa mooy maas gi nga xam ne man ci ne gannaaw ba ña ca tegu ñooñe ña ca tegu kon xadis bii moom moo lay firil bii moo lay wan ne lan la jublu kon saxaaba yi ak taabiroon yi ak taalibay taabiroon yi kon ñooñu ñooy ñetti ñetti maas yi waaye bul ko firee ñetti téeméeri at rek kon loolu moo tax ñu ne القرن شي لا ينضبط بمده معينه والقرن قرن عليه السلام دون دوند موي قرن صحابي يي سينو بير نك لي تامبلي بن يوني يونت صلى الله عليه واله وسلم با موجو كفا كمج صحابي شي صحابه يي ابو طفيل عامر ابن واثله الليثي kooku mi ngi faatu atum téeméer ci yónnik yonent bi salallahu alayhi wa sallam maanaam gannaaw boo xamee ne yonente bi yónni nañ ko li tax yónni gi am solo fii moo di yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi muy date daf ne xayru ummati al qarnu alladi buistu fihim maanaam ñi nga xam ne ci lañ ma yónni ci ñoom kon diggante fañ ko yónnee ak fi saxaaba yi jeexe tàkk mooy téeméeri at diggante fañ ko yónnee ak foofu muy saxaaba yi bi mujj ci saxaaba yi buy ku ñu wax Abu Tufayl mi ngi faatu ci atum téeméer buñ ko wàññee ci diggante fi ñu ko yónnee war a nekk atum juróom-ñett fukk ci gàddaay ji wala juróom-ñett fukk ak ñett ndax su fekkee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diggante fi ñu ko yónnee ak fi mu wujjee boroomam ñaar fukki at la ak ñett kon su fekkee ne téeméeri at képp la kon diggante bi loolu day daal di leer ñu ci suñ bopp kon xam na maasug saxaaba yi fan la atum téeméer ci yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a nekk atum juróom-ñett fukk ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la abu tufayl amir ibnu wasilat laythi ki nga xam ne juboo nañ ñoom ñëpp borom xam-xam yi ci ne moo mujj faatu moo fi mujj ci ku gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon alqarnu alladi buisa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy qarnu bi yonent bi doon dund muy qarnu saxaaba yim àndaloon foofa la jeexe ci moomu at qarnu ba ca tegu mooy ban lim ne summa alladina yalunahum ñooñu mooy taabiroon yi te buñ seetloo kat faatu gi nga xam ne eh, Abu Amir dafa faatu ci maanaam Amir ibn Wasil la muy Abu Tufayl dafa faatu ci at boobu day dëppoo ak beneen xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a wax ne ala rasi miati sana ala rasi miati sanatin la yabqa ala wajhi al ardi mimman huwa alayha al yawma ahad yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu muy jóge fii ci àdduna ci li tolloog weer dafa am bis mu ne li dale fii ak téeméeri ab day ñi nekk ci kaw suuf tey kenn du fi des kooku doon loo xam ne boroomam moo ko ko xamal ñu gis ne kon diggante boobu bi muy mat téeméeri at mu jógeeg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak téeméeri at kenn desatu fi woon ci kaw suuf ci ñi nga xam ne ñoo doon dund ci jamono yooyu ndax fekk na saxaaba yi kon ci diggante boobu lañ jeex tàkk bi mu daataan mat téeméeri at kon faatug Abu Tufayl day gën a dëgëral waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jooju taabiwoon yi nag la tàmbalee foofu ba am juróom-ñaar fukki at maanaam la tàmbalee ci téeméeri at yooyu ba am juróom-ñaar fukki at foofu lañ dëppoo ci ne taabiwoon yi ñoom itam jeex nañ maanaam des nañ fi gannaaw saxaaba yi lu mat soixante ans yoo xam ñi àndoon ak saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi dund waaye ku mujj faatu ci ñoom bim mu fofu rek fofu la jeexale mom ñi toppoon ñooñu muy atba'u tabi'in yarhamukallah talibi taabiun yi ñoom dolli nañ ci loolu juróom fukki at manam taabiun yi jeex nañ ba am 50 ans atba'u tabi'in dora dora jeex loolu lépp suñ ko dajale dañuy gis ne euh loolu moo tax boroom xam-xam yi dëppoo ne ki mujj faatu ci atbaaru taabiin ah koo xam ne ku am solo ku ñuy nangu ak faatoom la mooy ka nga xam ne faatu na ci atum ñaar téeméer ak ñeen fukk ak ñett ci yónnig yonente bi salallahu alayhi wa sallam maanaam buñ ko wàññee jële ko foofa ci yónnig yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba ci ñaar téeméeri at muy deux cent quarante trois ans ki mujj faatu ci ña toppoon taabion yi foofu la mbiram yam lii lan moo tax ñuy jii ma sonn ci xam date bi moo di danoo bëgg a xam ñetti maas yi nga xam ne ñoom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ne ñoo gën ci xeet wi war na noo jima góorgóorlu ngir xam loolu fan la yem mu door a xam musiba mi fan la tàmbalee loolu moo tax alxaafis ibnu xajar ci téeréem bu màgg bi muy saral buxaari muy fatxul baari daf ne fi hada alwaqt ظهرت البدع ظهورا فاشيا وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولم يزل الأمر في نقص حتى الآن وظهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يفشو الكذب mu ne ci waxtu woowu nga xam ne ñi toppoon taabi'oon yi jeex nañ nee na foofu la biddaa yi tàmbali nag di feeñ feeñ gu wér ñi nga xam ne ñooy mu'tasila doon ñi jëkkat tasaare biddaa bu rëy ci biir lislaam boo leen boolee ñi ñuy tudde xawaarij yi ak ñi ñuy tudde rafida yi muy chia yi foofu lañ tàllale nag nee na seeni làmmiñ di wax lu leen neex parce que am nañ nguur foofu nee na philosophe yi nga xam ne dañoo dikk traduire téere yi nga xam ne téere kéefar la indi ko ci biir lislaam nee na foofu lañ yëkkatee seen bopp tàmbalee nag di woote te gisuñu kenn ku leen jàjj nee na foofa lañ nattoo nag ñi nga xam ne ñooy ahlu sunna natt bu mettee metti di leen forcé ngir ñu wax ne alquran mbindeef la maanaam dañ ko bind kooku fitna bu metti la boo xam ne al imam ahmad ibn hanbal ak ñam àndaloon sonal nañ leen ci coono bu méttee métti alxaafis ibnu xajar mooy wax ba tey mu ne mbir ya daal di soppi ko soppi bu méttee métti maanaam sunna si nga xam ne ci la nit ñi nekkoon tàmbali di dellu gannaaw nee na mbir ma dañul di dellu gannaaw ba ci sun jonni tey maanaam ba ci jamono jëm doon dund moom alxaafis ibnu xajar mi ngi faatu ci e, juróom-ñetti téeméeri ak juróom fukk ak ñaar ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 852 ci gàddaay gi ci la alxaafis ibnu xajar faatu kon ci biir ak dundam lu jiitu loolu ci la doon wax ne mbir mi mi ngi wàññiku ba léegi waaye nag defe naa ne diggante boobaag léegi su fekkee woon li ñuy dund tey kon dana xam ne jamono yooyu ñu ngi woon ci aw yiw ñoom maanaam wàññiku gi gannaaw bi la gën a tar wala yaasu billah kon loolu dafay dëgëral li yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bi ci benn riwaaya parce que bi mu nettalee ne thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum dafa am riwaaya boo xam ne daf ne summa yafshul kadib nee na su ñooñu jàllee wax lu amut muy fen day daal di siiw kon ci jeexu ñooñu ci la tàmbalee wax lu amut nag tàmbali di siiw ndax kuréel yi nga xam ne kuréeli bidaa lañ daal di tàmbali di waxal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu amut ku bëgg a nax aw nit indi leen ci la nga gën nga daal di tër ay xadis ne leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nàngam na nangam ak nàngam ak nangam ngir xëcc nit ñi jëmale ci loolu ndax fekk na nit ñi jiitu lañ tàmmoon xam ko mooy sunna ba fu ñu leen waxee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nangam ñu daal di topp loolu moo tax yàq yàqkat yi feeñ ci jamono yooyu muy ñi sos bidaa yi ci lislaam ñu daal di tàmbali di teg ay xadis yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ko ngir woo nit ñi ci seeni ci seeni ngir yañ gëm moo tax mu ne thumma yafshul kadib maanaam su ko defee nee na bu loolu jeexee muy al قرون المفضلة سيكل ينغا خامني نيوم نيو گن ولا ماس بيغا خامني موي ني گن ني ماسوك صحابه اك نينا بو بوبا واخلو اموت واخال كو يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم دا فاي دال دي سيو تايت نونو موكو واخي نون لا امي سيبيري واخ ثم يظهر قوم summa yazharu qawmun yashhaduuna wala yustashhaduun bala ñoo agsi ci loolu sax li mu ne summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum xam nga daf ne li gën ci maas yi mooy ak maasam ña ca topp mooy maas ga ca tegu ña ca topp mooy maas ga ca tegu kon loolu lim lay jox mooy saxaaba yi moo gën ñoo gën taabiroon yi taabiroon yeet ñoo gën ña leen topp muy atbaaru taabirin boroom xam-xam yi nag ñuy werante foofu ndax ngëneel googu mbooloo mii boo leen boole ñoo gën mbooloo mee wala képp ku bokk ci ñii rek bu doon benn nit it moo gën képp ku bokk ci ñële boo ko koo ko mën a méngaleel ku mu mën a doon moo koy gën loolu am na ak juuyoo gu am ci diggante borom xam-xam yi ñii ne min xaytul majmoo la maanaam mbooloo mii li ci nekk ci ñu baax moo ëpp mbooloo ma lee ña ca nekk ci ñu baax waaye nag manees naa fekk ca ñële koo xam ne mën ngaa tànn fii kenn koo xam ne kële koy gën xaw ma ndax liñ bëgg a wax leer na am déet ñu ne li nga xam ne amul benn werante daal ci diggante borom xam yi ci ci mbir moomu moo di ne képp koo xam ne xeex na gis na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak moom di xeex dund ci jamonoom mu di ko digal muy def mu di ko tere muy bàyyi muy dépenser fi sabilillahi ngir taxawal diine ci jamono yonente bi sal allahu alayhi wa sallam kooku laa yadiluhu fi lfadli ahadun baadahu ku am ngëneen loolu amatul keneen ku mën a am ngëneen lu mel noonu loola faat na kon ñooñu ñooy assaabiquun tax moo tax borom bi tabaraka wa taala di wax laa yastawi minkum man anfaqa min qabli lfatxi wa qaatala ulaika acamu daraja ulaika acamu darajatan min alladina anfaqu min baadu wa qaatalu ñi nga xam ne ñoo doon dépensé di xeex fi sabilillahi lu jiitu fatxu makka lu jiitu ñuy ubbi makka nee na ñi nga xam ne dañoo dépensé te xeex fi sabilillahi gannaaw bu ñu ubbee makka ñu jëkk ñi ñoo leen ëppale daraja loola lu tax moo di jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñële doon dund gannaaw bu ñu ubbee makka nag yëf yi tasaaroo na nit ñi dugg nañ ci diine ji jihaad fi sabilillahi gën naa yomb alal yi te sa aroon a dépensé itam dal nay gën a yomb joxe fi sabilillahi dal nay gën a yomb kon ñële ñoo gën a màgg ñu jiitu loolu ñoo gën a màgg su fekkee ñooñu ñëpp ay saxaaba lañ te ñu jëkk ubbig màkk ñoo gën a màgg ñi nga xam ne ñoo dañ doo dépensé ak xeex gannaaw boo xam ne ubbi nañ màkk ñu jëkk ñi gën leen a màgg kon ñi nga xam ne dañoo ñëw gannaaw ñooñu ñëpp moom ñoo ñu taxu ñu ñuy wax kon loolu mooy wax ji dëgër foofu moo di képp koo xam ne borom bi tabaraka wa may na ko xéewal gu tol noonu kooku keneen mënta ñëwati gannaaw bi di yem ak yow mu teg ci ne yashhaduuna wala yustashhad ma am nañ ay màndarga ñoo ñooñu nga xam ne ah dañuy ñëw gannaaw boo xamee ne maas bu tedd gi jeex na mu yonent bi ak ñi sës ci moom ak ñi ci sësaat lim ci jublu moo di ne ñooñu dañuy seede te fekk kenn seedaloowu leen loolu mooy lan mooy yeeyoo wuñ seede ndax lan moo di ne maandu wuñ xam ngeen ne seede lu mu mën a doon ku maandu moo koy def moo mën a ñëw taxaw ci kanam imaam taxaw ci kanam qaadi ne ko fekke naa nangam ak nangam gis naa diw di def nangam ñi gëm ko loolu ku moo ko man mu ni ñëlee nag bokk na ci seeni màndarga mooy dañuy sawar ci seede lool te fekk yeyoo wu ñoo seede ndaxte amuñu ak màndute ñoom seen shahada mooy li ñuy tudde shahadatu zuur bu leen neexee ngir seenu ñàkk ragal yàlla mën nañoo sedd loo xam ne xamuñu ci dara te shahada xam ngeen ne dafa war a dëpp ak xam-xam wa ma shahidna illa bima alimna kuy seede dafa war a seede loo xam ne lu mu xam la lu mu xamul du wax ne fekk naa ko du wax ne xam naa ko lu mu xamul xamu ko lay kon ku mel noonu moom la ñuy ŋàññi ak shahadaam ku maanduwul ragalut yàlla kooku bu seedee ak seedeem amul njëriñ te seede guñ ŋàññi la waaye nag koo xam ne dafa bokk ci ñi war a seede yeyoo ko ba noppi xam na li muy seede kooku moom dañ koo soññ mu gaawtu mu gaawtu seede moo tax yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam day wax ci benn xadis mu ne xayru shuhudi alladi yati bi shahadatihi qabla an yutlab maanaam bu amee lu muy seede du toog bañ di ko woy ne ko kaay seede waaye yëg na ne ña ngay tooñ diw sàngam te moom leer na ko ne lañ koy def ak tooñ la sedd na ci seede gu wér du toog bañ woo ko day jógal boppam dikk fekk ale mu ne leen li ngeen ko teg wala li ngeen ko jiiñ loolu amut ndax man fekke naa ba nangam ak nangam di xew ka ko def mooy diw sàngam waaye du diw kon kooku ak seede guñ tagg la gu am solo la guñ soññee la bokkut ak seede goo xam ne mooy seede luñ la seede loo wut fekk dangaa yeyoo wut seede mu teg ca ne wa yandiruuna wala yowfuun nee na dañuy nisar te duñ matal loolu mooy lan mooy dañuy fekk ay mbir yu leen warut woon ñu waral ko seen bopp ne fas na maa yéene def nangam ak nangam ak nangam te nañ koy warloo duñ ko defe noona mën nañoo ñëw fekk koor ñu ne fas na ma yéene bu nangam amee ma woor ñetti fan wala ma woor ñeenti fan su nangam joojee amee du woor su ma amee nangam ak nangam ci weer wi fas na ma yéene sarxe nangam loolu mooy nisër te dañuy nisër waaye duñ matal seen nisër maanaam duñ ko def lañ ko wékk su loola amee du tax ñu def ko dañuy yéene lu baax ba bañ koo def kon ñooña doonuñu ñoo xam ne ñuñ tagg lañ te it ñàkk gaa def duñ ci am benn soxla duñ duñ ko faale loolu nag day tegtale ak ñàkk kersa ci kanam yàlla day tegtale itam ak ñàkk diine mu teg ca ne yaxunuuna wala yutamanuun yaxunuuna mooy dañuy wor wala yutamanuun te kenn du leen wóolu ci dara kon loolu day tegtale ne wor ju feeñ feeñ la ñuy wor joo xam ne munta ànd ak ñi di leen wóolu ndax ku waroon benn yoon rek benn wor boo xam ne daf koo rëcc def ko benn yoon ci mbir moo xam ne mu ñàkk solo la kon kooku du tee mënees na ko wóolu ndax xëy na rëcc-rëcc la bu ko dal benn yoon wala njuumte la wala lim ko def lu xeebu la su ko defee mën nañ koo wóolu bu loolu weesoo waaye nag ñii moom ni ñu leen melale mooy yëqoo noonu wala yu tamanoon maanaam seen seenu wor seenu ñàkk jub dafa fés dafa feeñ ba nga xam ne ñëpp maase nañ ci xam ko kon ñooñu euh, ñu ñàkk diine lañ kenn wóoluwu leen ci dara euh, kon gannaaw boo xamee ne maas googu jeex na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jubloo junj ne aw ay ak ñàkk a jub foofu lay tàmbalee gën a bare loolu moo tax ñetti maas yooyu ñu tudde leen alqurunul mufaddala muy ñetti maas yi nga xam ne ñoo gën ci maas yi mu teg ne wa yafsu fihimu siman nee na it day bari